beneen élément bi mooy Juan Branco mii dara ñoru ko ci yi muy wax. il n'est pas no wax waxuma il n'est pas sérieux xam nga Juan Branco lan la. Mm. man je vais pas jusqu'à dire que il représente rien mais il a de la matière médiatique il en fait parce que bon on l'a pris parce que c'était l'avocat du de de de Sonko mais Branco kañ la gëj a wax dara lu jëm ci Ousmane Sonko. c'est-à-dire lui il est en train de te faire croire que dinaa leen yóbbu CPI dina et je te dis une chose Branco est en perpétuel euh, délit euh, de diffamation ak l'État du Sénégal c'est-à-dire il suffit tey que État Sénégal envoyé woon ko une procédure judiciaire pour diffamation mu am lu ko doy parce que bari na yu muy wax yi nga xamante ni Branco wax na lépp Branco lépp la wax wax na lépp woo na ba xam nga ku muy woo woo na Xaadim Samb woo na ñëpp mais il faut sérieux quand même ce que ces gens-là ont fait parce que aussi da leen koy nangul ce qui ñi ñi egsi tey ba seen assemblée nationale bi ñu am fa une majorité relative parce que ñoom ñoo ko ñafe les avocats qui ont porté le combat pour en arriver là mais ça c'est des gens sérieux yow nga toog yow fi ñu toll nii yow est-ce que bokk nañu sax ñi dem si yow la. man boo xam. booleeguñu ma non pour te dire. booleeguñu ma pour te dire et puis ñun nañu nañu xam li ñu nañu xam li ñu am quoi nañu xam li ñu am man jànguma droit xawuma ko mais dama la wax ni la je suis rentré de la diaspora il y a, il y a pas longtemps j'ai discuté avec des juristes j'ai discuté avec des avocats booy bi day fooye gars yi dégg naa sénégalais yu naan non dañ koy may xar mu tabaski mais ñun xam nga ñun benn waaye naan donc am na xaru 600000 moo jënd naa ko yóbbul kii pour branco tabaskee ko c'est-à-dire que ñun on est ñu daal ñu daal yàlla ñu yàlla yërëm mais franchement quand je vois fi ñu toll nii ci wax yi nga xamante ni ñu war a construire suñu avenir war a xam fan la ñu jëm war a defar suñu njàng may mun a man dama buggoon ñuy wax sur la question de la santé. mais mais mais malgré les efforts. mais mais mais consentis. la la nga gis ni que tey am na des efforts yoo ci war a def nga nga nga gis ni. la nature a horreur du vide. quel est vide. te politique. mooy nga mën a laal aussi sa adversaire fuy metti parce que mbiru Branco bi euh, man jàpp naa ne metti na leen torop <laughs> te gêné na leen non xaaral rek te gêné na leen te xëy na ñoom li tax ñu opté pour ce moyen de de combat euh, qu'on peut partager ou pas xëy na jàpp nañu ne les juridictions nationales sont disqualifiées may mun a a Maimouna mun Maimouna yow li ngay reporté sax yow yow yow yow yab nañu de. yab na Sénégal xam nga ndax lan. yab Sénégal non non dama lay wax leen Maimouna. Maimouna les juridictions inter les juridictions xam nga Sénégal yi wax loolu. non je je c'est une boutade mais gis nga Sénégal yi wax loolu di wax ni par exemple surtout dañoo demagul ci dëkk yi nga xamante ni amul justice dëkk yi nga xamante ni yi war na fa mën a euh, sévir dëkk yi nga xamante ni. euh, les droits de l'homme am na fa de la de la matière euh, kii euh, may mun a ñun lépp doxul de ci dëkk bi. non en fait am na lu bari ñoom ñoom am na lu bari même tuuti am na lu bari lu ñu war a doxal. non ñoom mais nous avons de quoi nous avons de quoi être fiers de ce que nous avons.